laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun duñu seetaan di ñu seetaane ci barab bu tedd bii nag nga xam ne moo di kër Cheikh basiir ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul waaye eh, ci bis bi nga xam ne moom la murid saadix bu mag ba di a Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te a doole ak wéram woote muy bisub tudd yàlla muy ñaareelu bis boo xam ne woote na ko muy bëccëg boo xam ne delluwaat ci yàlla rek amut keneen kuñ ci boole laa illa illallah mooy amul benn buur bu yeyoo jaamu bu dul sun borom subhaanahu wa taala loolu nag mooy dëgg-dëggi tawhid waaye mooy dëgg yàlla mooy lislaam daal li ciy dugal doomu aadama mooy laa ilaha illallah mu woote nag woote ko ci jàmbaar ju mag ja nga xamante ni bii kàddoom li ci daan génne moo di baatub laa ilaha illallah ay cëram lan daan def mooy liggéeyal seexul xadim mu di maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridin euh, ca wala sikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnahun alquran nee na aw làmmiñ amut li ci lu ciy génn lu gën a màgg baatub laa ilaha illallah Cheikh Mouhamadoul Mountakha woote ko nag ci jamono joo xam ne nag jamono ju naqaree waxe la wala jamono ju naqaree woote ku ne xam ne ne adduna lëj ne fi mu ne mbon gi tisaaroo na xel yi jaxasoo nañ lépp yàqu na waaye Cheikh Mamadou Mountakha ne loolu bu amee nañ delluwaat ci yàlla borom bi subhanahu wa taala amul kenn koo xam ne dana ko tàllal loxoom di ko ñaan ku sunu borom subhanahu wa taala waaye jaarale ko ci sangam ba di Seexuna Ahmadul Xadim te loolu la sëñ Tuubaa Eh, sama loxo du ma ko tàllal di ko jëmee ci koo xam ne dangay wopp di faatu wala ngay wér di wér di su ma dee tàllal loxo sama borom rek laa koy tàllal moo tax bi jamono la jiyee Cheikh Mahmadul Muntaxa ne dara mënuñoo delloo si waat lu dul delluwaat ci yàlla te delluwaat ci yàlla mooy seeral ko nguuram gi seeral ko màggam gi seeral ko wéetam gi ci baatub laa ilaha illallah mu woote ko tey jii ñu ànd nag ak Baye Fall Mbacké di Serigne Cheikh mu Cheikh Abdou Latif Mbacké moom Mamor Diarra borom saam yàlla xër ko ci ak Baye faal saf ko ci lool muy dox diggante sëriñ bi ak Baye faal yi tey jii mu toog ci mbaar mi jàkkaarloo ak Baye Fall yi ñuy tudd yàlla Cheikh Mamadou Mountakha ne ci biir ñu maas a déglu Serigne Cheikh ci bis nga xam ne bisu wéetal yàlla la. bis la boo xam ne kenn bokku ci kurut borom bisu subhaanahu wa taala te boo doon wër àdduna ba mu daj amul benn bis bu gën a màgg bis bi bu arafa arafa ngay taxaw ñëpp seenam xel dem ci yàlla waaye bu ko ñaareele rek mooy bis bi Cheikh Mamadou Mountakha woote waat tey jii ci alxames. man ñeenti baat laa am lu may wax ñeenti baat yi sëñ bi wax ne ku ñëw na ko fas ci bis bi balaa def dara nañ fas saa su may wax ku ma wax loolaa lay waxaat sëñ bi nee ku ñëw da nañ fas sant yàlla sunu borom ñaan ko ak yërmandeem ak njëgalam ñaan ko bu def jàmm ci ñaan ko ndoxam jàmm ñaan ko nawet barkeel yooyu la wax ne ku ñëw na ko fas na ko ñëpp ñaan na ci ñëpp yenn man nag loolu rek laa am na wax nañ sant yàlla ñaan ko njëggal ak yërmande ñaan ko mu def jàmm ci réew ñaan ko ndoxam jàmm ñaan ko naag barkeel ah, yaakaar naa ne mbokk yi bu fekkee ne loolu ñun ñëpp maase nañ ko fas ko te te sellal suñuy xol adduna bépp mën naa am jàmm ndax yàlla moom li bëgg mooy ku ko bakk kañ ko waaye ku ko sant ndax la in shakartum la azidannakum da koo waat ne du ma ma du ma dañ ji mukk di dolli koo xam ne mi ngi may sant kon sant yàlla lay doon waaye itam ñaan ko ak njëggal ndax lépp loo xam ne am na ci àdduna rek bakkaar bu bari moo ko waral te kenn naa tabli ne fi ne bakkaar yi bari na ndox mi ko mën a raxas nag mooy yendoo tudd yàlla ñaq woowu ci génn mën a raxas bakkaar yëpp kon ñaan ko jéggal ak yërmandeem ñëw waaye nag jàmm am ci réew mi foo xam ne jàmm amu fa bu fa boo fa demee doo fa yàgg kon baatu jàmm mooy li ëpp solo waaye nag mu ñaan ko nag ndox mu ndox mu teel te barkeel nawet bu àgg te bañ a bañ a coos yaakaar naa ne loolu mooy defar àdduna mooy defar alaxira kon sëñ Assane yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog ñun dañu seetaan lii mooy kaddu yi bàyyi ko ci Serigne Cheikh te baax na ci nag ku ko dégg nga di ko fas ndax ginnaaw sëñ bi nee ne nañ fas loolu ku dugg ci kër gi rek da ngaa war a fas loolu maanaam ñëw fii takk sak laxasaay di wër di laa ilaha la mën ngaa yor su kurus rek di wax laa ilaha la ñoo yem ndax nag tudd yàlla rek la woote mën ngaa nekk Allemagne mën ngaa nekk Italie mën ngaa nekk Espagne mën ngaa nekk Amérique foo nekk rek yoral sa kurus di wéetal yàlla ci baatub laa ilaha illallah fu mu nga jëlaat ko ba ni ko sëñ bi bëggee muy douze heures de temps yoo xam ne yàlla dana xam ne màggaluñ kenn ku moom wooteeluñ kenn ku moom jaamuwuñ kenn ku moom kon lii moo amee fii ci dëkk bu tedd di tuubal Marousa waaye amee nag ci teewaayu Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko fi seen borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram di barakat Cheikhuna Ahmadul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa laa ilaaha la ilaha illallah